Anyways.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 teg bët bu ñëwee indaale xaalis bu bari jox la nga dal di koy ñaanal te nag boo xëyee gis ko ci lu la jommal naan lii dey musuma kaa foog ci moom moo tax nag ma ne xale bi li mu def romb na doy waar ndax ci ab kër dëkkandoom la dugg sac fa ay tisi ay parfum de luxe téléviseur ay bijoux ak xaalis bu toll ci un million trois cent mille francs ëpptalaw lépp daal ne ñu boo ko xayma toll na ci deux millions sept cent cinquante mille laawa wax xale bi def njombeli nag at yi mu ngi toll ci fukki at ak juróom-ñett di wuyoo ci turu yi caam mane moom daal dugg ci kër dëkkandoo yi di wuyoo ci turu M Njaay ak AS Njaay daa fay sàcc matériel bu bari la def laa wax xale bi nag bi mu sàccee xaalis bi tissu yi parfum yi puce yi ak téléviseur bi dafa dem làqu ci benn xale bu jigéen buy jaay boppam ëskay ne fa di ndaataatal loxo ko xawaare moom daal ne ca jos nag mu nekkoon mu ngi wuyoo ci turee naa gay ma xale bi ñaari coupon Tisivax bu douze ak bu six yards yi bokkoon ci alal gi mu sàcc la fayee xale bi jaay boppam ay waay samba xale bi nag gannaaw ba ko police arrêté ma ne la des ci li mu sàccoon yépp ñu ngi ko fekk kër yaayam xoolal ma lii rek yaayam mu ngi wuyoo ci tureen mbeng am fanweer at ak juróom ma ne ma waxaat ko bàyyi leen lu seen doom yi indi ngeen fat ko ba tax en agay di ndaw si jaay boppam ak en mbeng mii di ndayu xale bi ñoom ñëpp yoon teg na leen loxo waay way waay nag du bette ajuma 15 octobre bi weesu lañ leen doon atte ci tribunal flagrant délit bu Pikine Guédiawaye ci kanamu yoon nag ndaw si di jaay boppam moom daal weddiwul ne tee caam gannaaw bi mu sàccee ba pare jox na ko ci yëf yi waaye nag daf ko ko ndax dañoo waxale ba juboo ci prix xale bi dal di fay moom daal nee na liggéeyam la doon def ay way samba liggéeyu jaay sa bopp bu dee yaa ji nag daa lank ba tëdd ci naaj bi ci tuuma yi ñu teg ci kawam ci wàllum recel ba tax yoon mu jëna leen a daan ñetti weeru kaso yoo xam ne dañu koy tëdd ba noppi teg ci alamaan leen ñaari million ngu ndàmpaay <laughs> ma ne doom daal boo ko yarul mu dugal la ci musiba moo tax ma ne de jàngoro ji dal réew mi moo a graaw korona laa wax la xew ca Foundiougne doy na waar ab xale bu jigéen bu yoo ci turu kaas ja am 22 ans di élève en classe de première moo fa jàpp wujju ndayam maanaam ñaareelu baay dal di koy sot sotoo moog yaayam door ba muy bëgg a dee laa wax ay way te soir bi nee ñu nag li ko indi du lenn lu dul fóot weer daa weeri sama yére fekk wawul dal fay weer bosam xoolal ma yi ñàkk fayda yi rek ba tax kaas ja ak ndeyam jàpp seen ñaareelu baay boobu dal di koy dóor ba muy gis bi jeewu bëccëg er sekk nag di victime bi nga xam ne moom la def yëf yi nee ñu bi coow li tàmbale biir néegam la dem dugg toog waaye xale bu jigéen bi fekk ko foog di ko tifaaray saaga nday ci seen kanamu borom kër nag la wax ma ne waa ji sedd na lool waay ba mujj ko jàpp dóor ko ba muy bëgg dee ci seen kanamu borom kër nee ñu seen borom kër sax bi mu sonne ñaari rakkam la dem wooy naka noonu ci la ñu ñëwee dal jàpp xale bu jigéen bi corriger ko bu baax laa la wax ma ne waaw góore waay jël ñaareel bi dal di yóbbu ñaareel bi nag naka noonu dafa mujjee porte plainte waaye li gën a doy waar na ci kanamu tribunal ba xale bu jigéen bi dawul ci li mu def saala yaay ndeer laa wax ndax ci kanamu atekaay def ne li mu def regretté wu ci tous te bu beneen yoonee mu defaat ko ndax kii di tantam jooju def ne ko caga nga ma potal la laay li xew ci réew mi kenn mënu koo lijjanti mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz